L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. ko gërëm di ko baax di ñaan borom bi jéggal sunuy jéggal ñu sunuy rëcc rëcc نبي جلدي فالملجي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبنيان الجام ممع الصحابة التابعين له بإحسان إلى يوم الدين بك جلدي شنو خطبتي إن شاء الله لجتنكتي غصب أرض الغير مي jël suufa jàmbur bu la neexee mën nga koo dugal ci litige foncière xam ngeen ne mbokk yi loolu dafa nekk benn phénomène bu xew ci suñu réew te lu ñaaw la lu yées la waaye lu bon la tasaaroo na lool ci société bi te di gën a mën a yëkkati fitna ci ab société wala aw xeet mooy lu demee noonu jël ay suufu jàmbur wala jël bii jaay kee wala jël benn suuf jaay ko fukki nit wala sax sàcc suuf bi ñëpp bokk nga xamante ne day dellu ci am wàllu amma muy dañee public nit ki mën koo jël mën koo jëriñoo bàyyi seen borom wala jaay kër lekk njëg la jaayaat kër ga lor borom loolu fitna yi muy indi ci société mën naa indi guerre civile moo tax borom xam-xam yi ginnaaw bu ñu waxee ne lii day indi fitna indi pëccëxoo ci am réew borom xam-xam yi dañoo tënk ne crime bu mag la ci ab société waaye bàkkaar bu mag la min kabairi dunub te kiy def loolu moo xam ku mu mën ci doon moo xam ab président moo sàcc suufu réew mi di ko jaay ay ministre sàcc suufu réew di ko jaay wala ñu jël ko tong tongoo ko bàyyi seeni borom loole képp ku koy def boroom xam-xam yi dañuy wax ni wa saahibuha matrudun min rahmatillah kooku yàlla da koy dàq ci yërmandeem yàlla dootu ko yërëm ndax li ñépp bokk ku ko mën a jël aakimoo ko ku yées nga moo xam nag làq boo ko mën di làq fexe boo mën a def ci ay pression nit ñi nga mën a nax waaye mënoo nax yàlla subhaanahu wa taala nekk njiital réew tekkiwul ni suuf yaa ko moom lu la neex nga jaay jël say àndandoo ku nekk nga jox ko te ñoom ña ngay jox xam nañ ni lii du ñu war a jël ku ko jël ci ñoom na yëg ni jël na loo xam ni da koy xañ yërmande yàlla waaye ki jël suuf courtier bi wala ki mel ni moom jël suufu jàmbur jaay ko ñaari nit ngir ut alal wala sax ki nga xam ni dafa am teereem dend ak mbedd wala mu dend ak àll yonent bi nee na bu ca puusoon lu toll nii sebre sam sama loxo bi nii maanaam mu sàcc ko ci pointage yi wala piquet yi yokk ko ci يرد صلى الله عليه وسلم لنا كي دف لولو يلقى الله وهو عليه غضبان لنا كي دف لي يوم القيام بوي دجاج يالا يالا دا فاي مير مير وتر موتاخ ني ورا باي خيل سوف pour tay ñu dëgër fit lañ sooru ñu ëllëg sooru ñu yowmal qiyam nañu am rek nu ñu amee baax na mbokk yi irtisaabul ard jarimatun uzma sàcc suufu jàmbur jël ko jaay ko xañ seeni borom tey boo demee tribunal ñaata dossier nga fay fekk ci ay litige foncière yoo xam ne même bu état bi jógoon bugg koo defaraat dana jëlaat ay at ñaata jirim lañu xañ seen alalu bàyyi ci suuf ñaata veuve lañu xañ seen alalu jëkkër ci suuf waaye ñaata nit ñuy dund lañu nangu seen suuf jaay leen doole def te lu leen neex mbokk yi loolu lépp nañu xam ni ki koy def mën naa am ndey fii ci àdduna mën naa am bàjjen du ko garanti ba kenn du ko tëj waaye mbokk yi bàkkaar gënul rëy loolu su ma séjour bi ma nekkoon rëbës dama am ñu ma doon waxtaanal mag ñoo xam ne dépassé nañ ay soixante dix ans kenn ki bi may nettali moom li ko fi indi tam ma ne ah oustaz man de kaso bi sama problème ma ne ko déet waaye góor gi ma ne waaw ma ne ko yow lu la fi indi mu ne man daal problème mu suuf problème mu suuf moom fii ma ne ko ah, ne damay jël suuf jaay kii jaay kee jaay kee loolu moom moom ma ko avoué ci boppam nga xam ni dafa dem ba vice boobu nekk ci ADN am pour moom suuf mu jaay ko kii jaay ko kee du problème man ko xam nga ni loolu bàkkaar la mu ne ah yàlla day. lii bàkkaar ci àdduna bi ni mu bëree xam naa bu ko yàlla na réglé dina jël dara ma ne ko loolu nag mooy li la nax xoola ma nit ñi fi ñu àgg ci ñàkk gisin mbokk yi bépp suuf boo jël jaxase ko moo xam suufu kenn la ci nit ñi wala sax lu société bi bokkal boppam muy dëj public nga xamante ni terrain la terrain public la boo xam ni dëkk bi ñoo ko moom wala place publique la wala lenn ci li nga xamante ni yow du sa alal moomoo ko nga def ay mën-mëne dem uti say këyit ba jaay ko ba def ci la nga def na nga yëg ni li nga lekk ci sa biir safara rekk la mbokk yi suuf lu mu tuuti tuuti benn tibb suuf lor lay indil doomu aadama bi yowmal qiyaama Ali ibn Abi Talib dañ ko laaj ne ko yow Ali mu ne naam ñu ne ko ndax yonent bi dafa am lu mu leen beral bàyyi ñeneen ñi walla déet Ali ibn Abi Talib ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa këram beralu leen dara loo xam ni ñépp ci toll loolu yonent bi defu ko mu ne ah xanaa man mii nga xam ni lu ma am ci sama catu jaasi gi laa ko amee daa di jël mbaru jaase bi moom Ali génn sa benn feuille feuille bi ñu ci bind waxu yonent bi sallallahu alayhi wa bu mu ne yàlla rëbb na képp ku rendil ku dul yàlla maanaam ki jël gàtt rendi ko ngir xàmb yi wala mu rendi ko ngir tuuroo ko wala mu rendi ginaar gi ngir sotti koo deret bi fajoo ko kooku yàlla rëbb na la mbokk yi ndax xam ngeen ana lan mooy rëbbum yàlla sànjum yàlla mberum yàlla rëbbum yàlla mooy boroom munul dem àjjana su yàlla dawalul yërmande ci moom ndax lii mu def yàlla da koo tere te da koo bañ laana allah man zabaha li loo feebar feebar loo sonn sonn loo jaaxle jaaxle bu mu la feebar jaral nga rey benn mbindeef ndax rey mbindeef taxute wér kon loolu suñu mbokk yi tuur suñu mbokk yi xàmb suñu mbokk yi ndëpp war nañ leen leeral musiba bu rëy bii ñuy def jël ay sabar tëgg fecc ay nit di daanu ñuy sotti ay soow di sotti deret képp kuy def loolu yonent bi nee na yàlla rëbb na la te ki yàlla rëbb mooy ak tard min rahmatillah yàlla da lay xañ yërmandeem ndax dangaa jël bakkanu jàmbur deretu jàmbur sotti koo ko ci lu dul benn dëgg waaye bokk yi nee na bokk na ci walaana allahu man saraqa manaar al ard nee na ñaareel bi nga xam ne yonent bi nee yàlla rëbb na ku koy def te du ko yërëm mooy ki sàcc màndargaw suuf sàcc ci suufu jàmbur sàcc ci kër jàmbur ngeen dend ay teeree nga yokk wala mbedd mi yaatu nga yokk li ci bokkul yokk loo xam ne leer na la lii bokkul ci li ñu la jaay bokkul ci li nga moom te mbokk yi ana ñaata tey ci société bi ñooy doxalee noonu ñoo xam ne seeni tool sa bo ñewé ay at bo dellusee fekk muy yokku lan moo koy yokku seeni pexe loola ñuy yokku ci suuf bi ka koy def ak ña koy def yonent bi nee yàlla xañ na leen yërmandeem yowmal qiyam kuy def lu mel noonu nee na ñetteel bi wa laana allahu man laana waalida nee na yàlla rëbb na ci rëbb ay waajuram sa papa bi la jur sa yaay lu mu la mën ci def lu mu metti metti amoo benn droit taxaw jaamaarloog sa papa jàkkaarloog moom ne yaa ngi koy wax dëgg ba di ko merloo doom warul yëkkati jëwu waajuram ak lu sa papa def lu mu ñaaw ñaaw ñaaw moytul rëbb sa way waaye paa bi yàlla ko yàlla alal mais paa bi dafa soof ñaata tamit ñoo nekk bitim réew seen papa lor leen waaye lor boobu warul àgg ci ñoom ñu rëpp seen papa nañu bàyyee yàlla seen papa incha allah yàlla dana ko rege waaye nañu xam ni wayjur lu doomam moom moo ko moom loolu tamit na ko doom yi xam al waladu min kasbi abi nekk Europe yónnee sa xaalis sa papa jël xaalis ba mu la waroon tabaxal terrain lekk ko moo tay loo ci mun wooye la problème da koy yóbbu police loo munti def sa papa def na lu dul yoon mais mais moo la moom loolu la yoon di doom ak alalam bàyyi ko moom maanaam li muy tekki mooy ginaar ak alalam ak nenam borom ginaara moom waaye du tax nag ñu ko ko ba papa mën a lor doomam ci lor yoo xam ne islam du ko nangu kon way jur yi nañu ragal yàlla ci côté boobu nga dem ba am doom yàlla dimbale ko mu am lu mu bëgg suturloo teg ko sa loxo nga mun koo jël def ci séesi bakkan way jur boobu tamit war naa ragal yàlla mus naa fekke ndeysaan <laughs> benn histoire bu bu metti woon waaye yàlla defoon nañu tawfiq ci yërmandeem ñu topp ci di defar di defar ba diggante bi defarwaat benn xale bu ne bitim réew dafa yónnee papaam xaalis pour mu takkal ko jabar papaam jël xaalis bi takkee ko jabar moom waaye takkul ndaw si nag takkee ko jabar booy bi jóge bitim ma ma ànd benn mbokk bu nekk euh, Télé Diallo su ma déggee dina xam li may wax damay bëgg bañ a tudd turam ñu mais bi mu ñëwee 15 jours nanguwul dal ci kër gi nanguwul gis papaam nanguwul jàkkaarloo papaam ñu nekk ci di mënee di waxtaan di mënee di waxtaan di mënee di waxtaan ba ma ne ko diw mu ne ah, man day say frère ñoo woo te man dëgg rek laa bëgg a wax en tout cas lii sa papa def moo la ko sañ def mu ne ma loolu fan la tege ma ne ko lim la def xëy na metti na ci xol mais fàttalikul sa papa coono bi mu dal ci yow. bi ma ko nettalee lii mu ne wax ni yàlla du tooñ nangul kuy tooñ pourquoi sam papa tooñ na ma ne ko non loolu du tudd tooñ ci islam xëy na sa papa def na yëfu gàtt xel def na yaraanga wallahi papa ji toog di jooy ba pare ma ne ko góor gi lii ana lan moo ko jar sa doom góorgóorlu ba am li mu am wax dëgg yàlla yu mel noonu mbokk yi nañu koy bàyyi xel képp koo xam ni da rëbb sa way jur ak lu mu la mën mënti def wala nga saago ko toroxal ko yàlla rëbb na la yàlla billah kon la ñuy bàyyi xel loolu bu baax a baax nañu xam ne suñuy waajur ñoo ñu sañ a def loolu loolu ñu def bu ñu bàyyee suñu mer continue liggéeyaat incha allah yàlla mën nañoo dox leneen muqaabil li ñu suñu papa def mu ne ñeenteel bi wala ala allahu man aawa muhdisa yàlla rëbb na ku garanti saay-saay mu leer la ne kii c'est un criminel def ko tu musiba la nga jël ko làq làq ko sa kër wala nga jël ko ni sa frère la wala sa mag la wala sa nangam nga ne na ko làq loolu ñeent ñii yàlla da leen a rëbb ñoom boo leen doon lim ki ci gën a grave mooy ki sàcc suufu jàmbur donte lu tolloog febre la kon mbokk yi منار الأرض نيت داكو ورا مونت جيل يفي جامبر سوف جامبر نيت داكو ورا مونت تا تاي بو سيتلو ريومي والله ني بري ني بري اي فيكتيم لنج والله ني بري اي فيكتيم لنج ني لن دي لور لور غو خامني تاكاي ديف نخ ميغي خلاص ndax yëpp na ni bisa ngi ñëw man mii di wax ak yow bugguma victimisé wu mais victime laa ci ñi ma xam te xam situation man sama sama ñeenti terrain ñu ngi ko jaay plus de 60 millions ci biñ ma dugalee Rebeuss dugal ma même pas une semaine waa ji dem jaay terrain sama famille ngi nii ba léegi ñu koy dox plainte ko plainte ko def na ma ko daaw deux terrains yu ma ko def def ma ko ren plainte nga ko oh, ma guddi jóg julli sama xol bon ma bëgg a ñaan rek xalaat ko xalaat njabootam xalaat ma yëngal sama bopp rek bàyyi noonu wallahi samay frère am nañu ñoo xam ne xaw lañ ma teel mere lii te daf ko bëgg a jàppee yi ñàkk fay rek mbokk yi nan nit ñi jëlee alalu jàmbur bu ko yëfi jàmbur lew ko mu leer la ne diw moom moom lii nga xam ko surtout nga nekk dëkkandoom nga nekk mbokkam nga mun koo def jëf bu ñaaw bii nit ñi est-ce ñu ngi xalaat rëbbum yàlla ëllëg wallaahi mbokk tey problème bii ñu am Sénégal tey ci litige foncier xool leen littoral bi li Sénégal bokk yépp ay ministre mën di ko ko paacoo ay musiciens ay journaliste te lépp ci sababu benn président bu ànd ak ay nitam def loolu ñaata problème la mën a créer ci société bi li Sénégal bokk yépp muy nature bi ñu bokk war koo noyyee nga xamante ne loolu bokk na ci liy may nit ñi ñuy noyyi oxygène bu normal alalu àdduna tax ay nit di ko paacoo ci dëkku àll bi noonu parce que xam nañu dëkku àll bi ñu bëri xamuñu seen droit dem di nangu seen suuf di ko jaay képp ku ko jaay ak ku nangu ñu jox la ci ak nga jënd ci te xam ne du yoon yàlla rëbb na la te mi ngi lay xaar yow mal qiyam mbokk yi nañu moytu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci xadis bu wér nee na man zalama qiida shifrin min al ard tuwiqahu min sabi ardin man zalama qiida shibrin min al ard توقه من أرض من سبع أرضين نانا فوتو نيت لو تولو نوب تي سوفم تي سوفم ولا سوفو اتا نانا نجل جيل تي لو تولو تيب كوم ليغي تيب دام كو تيب يونت بي نانا دان لا كوي تاكال شين يوم القيامه دي ساي لول نو مونتي تولو نك مبوكي ني جانغات حديث بي ixtalafa ahlul ilm fi hada tatwiq borom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu ñu ne li mu sàcc mu tolloog tibb suuf su duggee bàmmeel la tolloog tibb suuf bi tàmbale ci suuf bi mu taxaw moom ba ci juróom-ñaareelu suuf lu toll noonu la yàlla jël ñu ko koy teg chaque jour que je fais ba yow man fi am waliyaadu billah tibb boobu rek nit àttanu ko am ñu ne déedéet misaalu suuf si ni mu toll la ko yàllay teg ba nit i dekki mu dekki yàlla mbugal parce que lan la sàcc bokk benn tibb benn sebre ci suuf benn sebre ñu bokk koñ bi ñëpp bokk ko mbedd mi ñëpp bokk ko nga ñëw nga def ci lu la neex nga ñëw nga jël ci mbedd mi jël ci yoon wi mais mbokk doo ragal yàlla loolu nga jël yonent bi nee na dañ la koy mbugal bis boo deewee ba ba bis penc di taxaw soo dekkee yàlla dàq la ci yërmandeem ñaata tey ñoo nangu kër jàmbur nit war a dénk la këram nga ne ci kër gi di lijjanti di lijjanti ba jël ay kayit ne kër gi yaa ko moom ñaata man nit wax na ma carrément sama mbokk sama kër laa ko aal 17 ans ma nekk bitim réew ndeke moom lijjanti na lijjanti lijjanti lijjanti bu am ay këyitam ma ñëw bëgg a jël sama kër attaqué ko tribunal ba léegi moom la ñu jox dëgg te muy sama alal ma moom ko te moom mu xam ni man maa ko moom ma ko maa ngi lay giñal ci yàlla de xaw ma lan waaye li mu jël ci yow dina ko fay fii ci àdduna balaa mu ko fay àllaaxira dana ko feebar dana ko amee ay nattu wala njabootam di ko feebar di ko amee ay nattu mbokk yi àq baaxul jullit day moytu àq nekk ministre taxul nga sàcc alalu Sénégal nekk député taxul nga sàcc alalu Sénégal nekk journaliste taxul ñu lay jox ay 4 hectares 5 hectares mu leer na ni moomoo ko régime bi passé ñaata ngeen gis ñoo xam ni ñoo ñu la doon dàqante ci super yi tey ñu yor ay immeuble loolu xanaa ku def moo ko xamul yow démb yaa ngi ñu ne yooyu dàqante ci super yi dàqante ci super yi tey nga bëgg a yor alal bu toll noonu yow boo goree wa nga war a tiit war nga xam ni yow ma xiyam da nga dajeg sa borom mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci beneen xadis man axasa min al ardi shay'an bi gayri xaqihi xusifa bihi yowma alqiyama ila sabi ardin waaye li borom xam-xam nee na yonent bi nee na képp ku jël wala nga tooñ nit ci suufam neena dañuy jël suuf si di la ko bës xas fu la ko ba juróom-ñaareelu suuf ba yowmal qiyaam noonu ngay dekkee nga dekki nit ñi dekk yowmal qiyaam nga yenu suuf noo koy yenoo mbokk mbokk ña ña ñaata borom vingt hectare attan nga vingt hectares yowmal qiyaam nit ñi dekk nga yenu vingt hectare li tàmbalee ci suufu àdduna ba ci suuf ba mujj nga yenu ko nii naan maa sàccoon suufu Sénégal wala maa sàccoon suufu bàyyi diw maa sàccoon alalu bàyyi diw maa jaayoon téere jàmbur maa nangamoon fii mën nga ëpp nit ñi doole de mais fële wallahi dëgg moo fa am ak njub tiit leen ngeen ragal ngeen delloo alalu jàmbur waaye ngeen muytu Sénégal tey dañoo dem ba yàlla nee na yonente bi nee na safatul ñu bari ndax ci alal seytaane da lay nax ah garaawul ñu bëri nag ci sénégalais yi waxoon naa ko fi ñu bëri ci nit nguur xawma nu ñu leen naxee ñenn ñi ñoom dañoo jàpp ni jaayal senegal yëpp boo demee umra yàlla baal la say bàkkaar man xawma kan moo leen wax loolu moo tax ay grand bandi ngay dajal ak ñoom ngay dajal umra te mu leer na ni kii ñëw at yow xam nga ni moom xam na ni sàcc la ku la ciy xool sax du la ñemee xool bët day day cefal ay bët day tey mbokk yi nit bu jëlee alalu jàmbur même boo goree war nga xam ni lii lii lii mënul reet première sa àdduna kaso ngay nekk sa àllaaxira mu gën a ñaaw lan moo jar nga daw sa réew ñemee doo dikk say sët neppi say jarbaat neppi say doom ne fi say rakk ne fi say mag ne fi ñemeetoo dugg Sénégal parce que sàcc nga say doom xam ni yow sàcc nga léegi li nga doon bañ am siiw nga waaye am nañu gën a grave ñooñu mooy ñi gaañu bàyyi ay jirim seeni mag ak seeni rakk nangu alal bi seeni jirim yi am nit ñu bàyyi doom bàyyi terrain walla bàyyi kër bàyyi frère frère bi war a gérer loolu pour jirim yi mu fexe ba alal ji naax saay fexe ba takk yaayu xale yi aakimoo alal ji borom bi nee na innama yaakuluuna fi butunihim naara mu teg ne wasa yaslawna saira yàlla nee na ñi lekk alalu jirim ñi jël alalu jirim aakimoo ko ñooñu borom bi nee na jahannama safara la ñuy lekk yowmal qiyaam yàlla neen danaa leen lakk sama jirim yi toog am na di koo xam ni wallaahi papaam li mu bàyyi woon ci ay kër li mu bàyyi woon ñetti tool la bàyyi woon ñetti tool yépp ay doomam perte nañ ñetti tool yépp ay doomam perte li gën a doy waat kenn ci doom yu mag yi di xuloog rakk papaam ci loolu rakk papaam tëj ko ci kaso ndax rek da koo ëpp doole parce que rakku papaam lenn la ci police amu lu mel noonu xale yi toog nekk jirim nga mën a jël seen alalu baay yow xamoo ne bis dina ñëw say doom nekk jirim li ngay lekk dépense bi ngay jox sa jabar safara nga leen di jox bu sa jabar demee marché togg ceeb bu xonq jur ceebu safara la togg na safara daa xonq bu toggee ceeb bu weex tàll ceeb bu safara la togg ndax safara day weex say jabar di ko lekk nga di ko lekk sa jabar deful dara jigéen ñu bari seen jëkkër ñu ngi leen di posone parce que sàcc alal bu lewul di leen ko dox waaye am na ci jigéen ñoo xam ne ñoom it da ngay xam ne ñii jubuñu jigéen bu jub sa jëkkër bu nekkul ci yoon taxawal nga ne ko nijaay delloo loolu yëfu jàmbur lii nangam nangam nangam bu yaboo na la fase loolu moom mooy dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere nañu lu mel noonu mbokk yi ku ko doon def tiital nga dellu ginnaaw jamono bi yaa ngi dund mu leer la ni suufu jàmbur tooñ nga ci moo xam lu tolloog sebre na nga tiit na nga tiit baax a baax a baax nga tiit li nga def bàkkaar gënu koo rëy crime la bu nganda nganda nganda ñii jaay suuf waay waay sóor leen yàlla te xam ne ay jullit ngeen ku nekk ci ñun bëgg nga sooy dee yàlla yërëm la bëgg nga boo dekkee yàlla yërëm la waaye bëgg nga dem àjjana alalu àdduna bi nga jël fii di jaay suufu jàmbur di ko lekk lan la la yokk te boo seetee ñu koy def doo gis ci ñoom benn avancement bu ñuy rawee kenn jaay na terrain yi jaxase na terrain ke litigé na fii jaxase na fee yëkk tribunal daw nangam def nangam def nangam maa ngi ci dajeeg benn waaye ci benn commissariat bi ma ne tëll fekk mi ngi doog ci commi commissaire ma ne tëll nuyoo dafa tiit bu jóg taxaw toogaat ma xool ma ma xool ko may wax ak commissaire bu dem a xool ba jaa commissaire ah waa mais lu xew ma ko laaj <laughs> ko non commissaire ya, nangam nangam ma ko laaj commissaire ne ko en tout cas oustad mi ngi ne rek ak yow yow ngay pat pati ya quelque chose commissaire laaj na ma ba léegi waxuma ko dara parce que rus na de ko wax mbok borom tool yi ragal len yalla ci tool ci sayaan yi ngeen di bok ragal len yalla ci guddigi ngeen di yok seeni tol ci alalu jàmbur ragal leen yàlla ci jaay alalu jàmbur suuf dafa dangereux suuf dafa dangereux suuf lu ci nekk ci ay fitna kenn xamut nu mu toll ñaata ngay dégg ci dëkk àll bi diw gor na diw diw dóor na diw diw rey na diw nangu wante ay suuf bu kenn xamut ana fan lay tege da ngay dem ba ci jàng ni Sénégal fan la ñu toll dégg ci ci diine fan la ñu toll ci li yàlla tere moom daal ñu ngi dëggal li yonent bi waxoon te yaati ala nnaas zaman laa yubaali almaru bi ma axada min almaal ahuwa xalaal am xaraam yonent bi nee na bisi ngi ñëw nit ñi dootuñu faale alal nuñ ko amee seen yoon ci dagan na wala daganul ñoom nañu jëriñoo sóoruñu yowmal qiyaam waaye yowmal qiyaam bisa ngi ñëw nit dana taxaw wallahi banaan yàlla yaa lay dëggee kuntu turaaba ay yàlla teg maa tee woon nga maa def suuf yow mii def loolu moytul wattaqi daawata al mazlum am na koo xam ni am na xalaat am na yërmande ci ñaanal la yàlla mais am na ku ko amut de billaahi am na ku ko amut billaahi am na ku ko amut am na koo xam ni fa nga ko defee loolu fa lay taxaw tàllal yàlla loxo moo tax waykat bi ni yow tooñkat bi da nga moytu de yaa ngi tëdd guddi di nelaw ka nga tooñ nelaw ka nga te bis bu ñaanee yàlla day nangu yonent bi nee na wattaqi almazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijaab moytul ñaanu ku ñu tooñ ñaanu ku ñu tooñ direct yàlla da koy jël direct jël suufu jàmbur jaay jël alalu jàmbur tooñ jàmbur xas jàmbur def ko lu xaraam moytul loolu su dee yaa ngi dund ñaata nit ñoo nekk lekk suufu seeni sœur parce que seeni sœur seen jëkkër dafa gaañu ñaata nit ñoo dugg ci toolu jàmbur wala ci kër jàmbur di jaay dëgër fit di jaay ni koñ bi fi laa dëkk lu ma neex ma def mbedd mi ngeen bokk moo moo ko amoo droit def lu la neex ñaata nit ñoo fexe ba tonn alalu jàmbur ci lu tegul fenn ñaata jardin public la ay nit sàcc ñaata ñaata ñaata ñaata kenn xamul nu mu toll ñaata suuf bu xale yi góor moom koñ bi moom ko nga fexe di lay ba jël ko wallahi jullit ñi war nañoo tiit war nañoo ragal borom bi taala wa tabaarak ne wala taakulu amwalakum baynakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li taakulu fariqan min amwali nnasi bil ithm wa antum taalamun moytu leen ci def pexe di jël alalu jàmbur di def ay mbir ngir nangu alalu jàmbur loolu ngeen di def du leen jëriñ fitna rek da leen di jëriñ yow mi nga xam ne nag yaa def lu mel noonu te yaa ngi dund yow mi sàcc alal boo tabaxoon vingtième étage mu leer la ne fi nga ko tabax du yoon moomuloo ko ragalal yàlla nga delloo ko étage bi rëy na de mais mbugalu bàmmee la bu gën a rëy munoo nekk journaliste nag wax ba mu dagal munoo nekk patron gendarmerie wax ba mu dagal parce que Sénégal fi nañu fi ak alal mooy ñi warul woon a am alal ñoo am alal sëñ bi nekk général gendarme dafa tekk ne war ngaa am loo xamante ni leer na leen sa salaire boo ko dundul vingt ans munoo ko am nekk ab général mën na tekki loolu nekk procureur nekk avocat su di juge yu bëri dañ leen a corrompre ci ay kër juge yu bëri waxuma ñëpp avocat yu bëri waxuma ñëpp borom kattan yi ci état dañ leen a woon ay suuf loolu ngeen jëloon te xamoon ngeen en âme conscience moomu leen ko na ngeen ko delloo ndax mbugalu yàlla moom moo gën a metti beneen bi na yëg ni yawmal qiyaam dara du rëcc dërëm foo ko jëlee foo ko dugal dara du rëcc sóoral loolu sóoram lool bàmmeel dafa metti ñu ngi la wax bàyyi woo ko xel mais bàmmeel dafa metti soo buggee xam mbugalu bàmmeel dëgg defal na waaja defoon fa jékki rek yaram bi daw mu woo doom yi ne leen gasal leen ma ñu gas bàmmeel mu sol yéreem mu ne xale yi sàng leen xale yi sàng ko mu ne dugal leen ma suuf ma xale yi ko mu ne dama bëgg xam dugalu bàq mais biñ ko jëlee suul suul mu tee boobu ba mu ak fii mu ne suul leen mu suuf mu génn ko mu ne laa ilaha illa allah moo doomu aadama yi xam ngeen li leen di xaar ci kër gi xam ngeen li leen di xaar ci kër gi man day maa ngi dund ñu sànni ma ay peel avant may dekk tiit naa ba dama génn suuf yi nga jël buñ la ko tegee mbokk nan lay def say doom yi fi nekk yéen ñi seen papa def loolu te xam ko bu seen papa génnee àdduna lu ngeen xam ci alalam lu lewul delloo loolu mooy dimbale sa papa tey sa papa dee mais na ay musiba ak tooxi doona te bëgg nga sa papa dem ay kaamil du ko tax dem àjjana mënu koo tax de demal ko màkka du tax mu dem àjjana jaamul ko yàlla di tax ndax li minhum yawma idin sha'nun yughni kon xam ngeen ni seen papa dafa sàccoon alalu jàmbur fexe leen ngeen jël ko li ci des ngeen delloo ko ngeen delloo ko dafa jot ñu te ragal yàlla te xam ni bàkkaar baaxul yàlla ñu yàlla musal ci bàkkaar képp kuy dund boo dee def katu bàkkaar xam nga nit ñi ñëpp xam na ku ne mën nga àtt sa bopp def katu bàkkaar yi xam nañ ni def katu bàkkaar la waaye bàkkaar bi gën a grave mooy bi nga def sa diggante ak sa morom mooy dund mel noonu jullit war na tiit ci def ñaaw téef ñaaw téef nit da war a tiit maa ngi gis benn extrait Guinée wallahi fooguma ni nekk nit àgg na fii ci iñaan xuloo ak dëkkandoom toolu papaye boo xam ne deux hectares la mu bàyyi ba guddi ànd ak ñenn dagg papaye yépp kii yépp ci kaw cari jarab yépp ci kaw ba ñu ngi ko wane ci Facebook bi wane borom tool ki def lu mel nii lan la ciy gagné après après lan lan la ciy gagné allahumma ahdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعد من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم